tisbaar dañuy tari ci suuf. Mhm. yëpp laa wax booy julli timis nga tari ca kaw. am na fi boo fi laalee am nga fooy dugg waaye dañuy waxtaan. Mhm. alxuraan lu mu wax yàlla dafa ni man rayuma isa man daajuma isa walakin subi allahum am na ku ma nuralee kanamam bar rafa allahu yëkkati naa ko naa ko wàccal mhm. mam Seydi Senghor même son père Seydina Imam Allahil Mahdi mooy Mouhamed dafa ne mën a démb maa weexoon maa ñuulaat mhm. foofu tamit question bi day duggaat foofu ci biir incha allah moom wane na woon tànk ba mu yëkkati woon boobu sax mën naa ko teg noonu ci suuf mais dafa fu mu jëm maam Seydi euh, am na raat ñu nekk Cambérène am na ñu nekk Yoff bi mu nekkee ca nasaraan sa da daan dekkal ñi dee ñi mhm. mission Rawala Issa mooy dafa ñëwoon ci jamono yi médecine xam leen jamono yi médecine la Rawala Issa ñëwoon waaye bu fajee docteur yi faj dañ naan égalité am na mu jege wa yëpp sirul axma am leen wa yëpp sirul pam siri mu jege muy gisloo gumba yi di dox loolu la fa ñaar maam Seydi mujj gi mu dugg ci armée yi di dëkkal néew yi la preuve armée lam ya 1914 la ba tey ñu ngi fay suul te feesagul at may nekk cabaret. 1914 ba tey. bu yoof le 29 août 1909 ba tey feesul. maam Zeyna Isaar wala. pour xam ne la moom mooy Isa ibnu Mariam. dekkal na nit. dekkal na ay nit. doxloo na ay lafañ. Mhm. misli. nam ka doon def ca démb da daan wax naan man lu ma deful woon démb su ma ko deful fi bàyyi leen ma la mu daan def démb ba bu koy wax da koy fàttali boppam bi ci gën a doy waar mooy sëy naa ñang papaam góor gu naan bàyyi seexu ñang dañuy liggéey jumaa yoof jumaa ji daanu ci kawam jumaa lëmb ku mu daanu sa kaw paam si di jeex na mag ñi sulli sulli sulli ba jot ka maam Seydi yëkkati ko ak doole ja mu yoroon. da ko yëkkati téye mbagg yi mag ñi nee na ñu ngi dégg yax yi ni muy demee. mu koy topp di ko toppatoo ba delloo ko au docteur bi ni ko seetal ma bi mu ko seet mu ndax dara jot mu ne ko dara jot mu ne ko continuer nga liggéey mu ne ko daan naa def di démb. nit jóge na Kajoor. di andi muurum koor Mourou Mbaye di andi ay zakat ni xaaral ma sangu ci géeju kàmm géeju yoof gi dugg ci géej ga lab 22 jours. ku dee ci géej 22 jours génnoo li muy di mbaal génn ko mu jël bantam ni leen daan naa wax ak ñiy dem ba yëkkati ko ni ko jógal mu jóg doxi soxlaam. billahi wallahi balka alxuraan loolu am. kun naan bàyyi seen andooy bàyyi Aliou Diagne dafa ñëw ci maam Seydi mu ne ko ana Seyna mu ne ko ma nga fa. Mm-hmm. mu ne ko lu ko dal mu ne ko dañ doon football fii am damm. fii yax bii clavicule mun nga andil ma ko mhm. mu andi ko sama maam jël loxoom bu sella ba tekka ca loo tekka ca tekka ca mbagga ma mhm. di ko raay naa kan dimbali daa ne suude waa di yaxe billaahi njaboot ak mooy dégg maam Seydi dekkal na góor gu naan bàyyi libaas mbéy nga turandoo xale bële mhm. kële toog turandoom kin ko tudde dafa génn àddina du Mbaye ñu koy waajal maam Seydi jóge Yoof ñëw ne ana libaas mbeg ñu ne ko mi ngi ci wanag bi ñu ngi koy waajal mhm. mu wër ko wëraat ko nekk nekk libaas mbeg mu ne laay moobu du waxtaan mu ne ngan balaa moo neex nga fekk fa borom laay moobu du waxtaan jógal kookoy si naay saro wala Pape Seydi maam mhm. Seydi daa dox ci beddi Cambérène ni bu nu fekkee ñun ñii ñu toog day jël bant bi dóor la ko wala marakis bi dóor la ko paparaan na koy dóor yow boo eggee soxna si yegg isaa egg ñun ñëpp ñu egg belaa egg ku nekk naan fii la ma dal fee la ma dal fii la ma dal maam Sidi <laughs> loolu la daan def waaw waaw maam Sidi ay saar wala dem na Versailles Paris ba boo demee arc de triomphe boo fa génnee nga dem Versailles li nga xam ne kii mooy jont yàlla isaa te nag bis bi muy wàcc dañ isaa juróom-ñaari asamaan lay wàcce dinaa ji dem ci biir waaye ba mu jógee ngaa xam ñëw Tiwaawan muy première gare ñëw ba yaraax muy septième gare mu fekk làbbe yi taxaw mu laaj leen lu xew ñu ne ko isaa mooy wàcc tey mu ne ñun ñu tudd isaa kaay leen dem bala noo gis est-ce que bi mu yéegee gaa gis nañ ko voix bi la ñu dégg mu ni leen suma ma wàccaatee du ngeen ma gisaat fekk bàyyam bàyyam génn àddina ñetti fan kenn robu ka kon su dul woon dëgg keroog la bàyyi laay di yàqu waaye keroog la Seydina Issa Rouhou Laye wàcce yaraax ba mu wàcce yaraax génn boroxlu jaar ci biir àll bi ñëw ba Sainte Marie Anne benn laa bi leen xeetu Issa jaar na fi moo waral Sainte Marie Anne bële église ba maam Seydee fa jaar ba mu fa jaaree ca la gaa yi jël mandarga ne xeetu Isaa jaar na nii kon Seydina Isaa roole wane na ay màndar yu bëree bëri yoo xamante ni mën nañu waxtaan fii fii ba suba te du jeex. dafa am ay île île yoo xam ne dafa nekk Ndakaaru. Hmm. te boo ko dajalee dafa am lu muy joxe. Muhammad signification yow yaa ngi duggaat ci Baye Laye. waaw. Modou. Seydina Limamou. alayhi salaatu wasalaam gis nga wax nga ko sànq ku mu neex weddi yàlla sax ba mu waxee xul walaahu axat dañ ko noppil am nga doom am nga jabar bu nu fontoo kon ku am pouvoir kenn du la weddi amul fenn addina kenn mënul wax moo du ñëpp ni la waawul waawandoo mënta am yàlla sax amul waaw ci àddina yow mal am lay wax kenn du wax fa la koy amee fii nag ku mu neex weddil waaye bàyyi lay dafa doon mën a démb ba na tey il yooyu ay mandarga la mhm. avant il yi bàyyi lay làmb ngor bële ilu ngor bële bàyyi fa leeram moo fa nekk junniy at làmp bi naan nii saw bi fees na dell tey nun ko saw bi fees na dell tey ah. dëkk yaa gox ya fee ba fay wenn yaa gox ya tanjaloo ngir dëggal waxi limaamu laa maa la ko ku sopp Seydina Limaamu màggal ga maa la

Eva yow ak ah, ah, Bella dama leen di boole. be ku nekk benn question mu tontondoo ñaar ji. waaw ba tey. kii mooy euh, lay maxtaar ziar lu bëri. amaat contentement bu baax toog jàkkaarloo ak yow tey. ndax defoon nañ ko daaw macha allah yàlla def ñu fekkee waat ren yal nañ ko fekkee at yu bëri. man nag bëggoon naa ñëw nga ñëwaat tuuti ci li nga xamante ni moom mooy euh, lu mu tuddati waay euh, Seydina Issa lu ñuy wax bi ñuy wax ak. ist ak Jésus Christ bi ñu naan messi bi moo ñëw devenir Mahdi boo bëggaan naa après nga ñëwaat tuuti ci histoire bi. macha allah messi Mahdi Bella. waaw maa lay ziar. sa micro maa ngi ciy ñëwaat en attendant lay maxtaar di ma ko maa ngi ñëwaat ci yow. Euh, Messi Mahdi. Euh, dañoo nekk ci réew. Hmm? dañoo nekk ci réew bu am ay culture jaxasoo. Hmm. waaye benn jëmm ji la. waaw Mahdi mooy Seydunaa Mohamed. sallallahu mooy Messi mooy Jésus Christ mooy Isa ibn Maryam. ñaari question la. te bi kii bindee kii moo ko tontu. ok te kii bàyyi mii di baayu Seydina Isa bàyyi jàngul bindul. Hmm? waaw. te amul sëriñ bu ne la moo jàngal Seydina Limaamu Seydina Limaamu benn wallaahi azim benn sëriñ jàngalu ka Seydina Limaamu kenn mosu koo fate mboog Seydina Isaa bokkul Seydina Limaamu mooy Seydina Limaamu mooy Seydina Isaa mooy taawam mm-hmm. kon ñaari question yi bokkul limaamu la ak Isaa Isaa danni bu Mahdi yu génne àddina Isa rek moo am garaatu julli ga mhm. parce que ñaari prophètes yi muy Muhammadu Rasulullah ak Isa ibnu Maryam ñoo àndaat ñëwaat fii ci ko xam ak ko xam ku bëgg ak ku bañ mhm. ñoo fi nekkaat bella baax na ndax ah, ndax dafa neex li dafa neex trop Seydina Mohamed ci taarix wala ci li ñu xam Seydina Isa moo jiitu Seydina Mohamed ci li ñu xam ci histoire yonent yi léegi naka la sëy léegi Seydina Limaamu mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye naka la Seydina Isa di ñëwaatee nekk doomu Seydina Muhammad fii waa léegi nan lay kaaba gi jógee fii dem fee da nga gis kaaba gi ñu yoon ko yóbbu xaala Isa nu Mariama <laughs> paparaan xaala Isa nu Mariam yaa bani Israila li nga laaj maa ngi Imraan isam nu Mariam. waaw. xaala isam nu Mariam yaa bani Israil. inni rasulillahi inni rasulillahi musaddiqan. lima bayna. min at-tawraat wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu Ahmad Seydi Laay Seydi Seydi Laay Maadi Modou Papa Laye ak Vieux ngay rey seen bopp. Modou ca leer gala. ca tàmbalikaay bala. commencement de la de, la création de Dieu. Ah, waaw Bella ñëwal. Modou e <laughs> Bella yaa ngi yàq sa micro bi rek yow bàyyil di ci toog <laughs> waaw maa ngi ñëwaat ci yow su baaxee Mamadou li mu laajte dafa am solo. <laughs> ndax am na ñu tolloog moom xam-xam. dégg-dégg ak xam-xam bokkul. Mm-hmm. Serigne Touba dafa ni est-ce que loolu neex na dégg te pourtant dëgg la de te koo ko weddi safara nga ñëw. balaa ma ñëw sa question. Mm-hmm. Cheikhul Khadim Pape si dafa ni. Mm-hmm. si maamal waraa asri. lëddalaay fi yëddi Serigne Touba nee na képp ku yor rek sax sax ruumaag tey. ku sañ weddi lool. kenn man day lan la ci teg. tarfawul malaayikatu ilaa Touba Cheikh Mansour Diouf sama waaj Sëriñ na Kaaba gi naaw na dem màkk fële Sina Isa moo dem Ndar jëli capital Ndar indi ko Ndakaaru est-ce que bâtiment yi lan yenu indi Ndakaaru ne capital baa ngi bi ci des Seydina Muhammad bi yàlla indee leer gi yàgg nañoo ànd de bi mu indee leer gi dafa jël leer gi oh malaaka yi ni leen tegal leen ma gëfale nii ma tooge nii nga tooge ni soxna si tooge ak Pape si ni ñu tooge mu tekk ci taabul ji lan la leeru yonent bee nekk nii mu ni Jibril arrêtal ma taklimaat yi mooy bu benn téléphone yëngu dama soxla sama bopp ñu ne ko lu tax mu ne leeru ki nu bindaa ngi nii ki gën ñëpp Seydina Mohamed mi lu xew yàlla ni tekk dara yënguwul nee na bi mu yëngatoo am lu rot ca moom mu ni kii mooy ruwul xut ci Seydina Isa kon ñoom ñaar yàgg nañoo ànd bi maam Seydi. Mhm. romb na xeer bu rafet. mu taxaw xeer bi yéem ko yàlla ne ko xeer bi ndax def la yéem mu ne ko ah kay mu ne ma mu ne ko ma toj ko mu xaral ko ko bi mu ko xaree mu gis waajur fa ne di julli mu ne kii am na fi juróom ñeent fukki junni at di julli pour rek dem àjjana mu ne ko kii gu yàgg gi waa kër Maodo yi moo ko man hmm? julli yooyu yëpp seen benn kabaram benn kabaram fam si di mhm. wéev orange mone ne bi si fii lay jaar di ñëw. waaw fooy jaar. <laughs> ay chiffres yu ñuy bind la. <laughs> wallaay ay pédagogie waay waay pédagogie waay. waay lay maxtaar pédagogie waay. bi sa maam defee loolu. waaw kay dégg la mu ko wax. mu bii seen benn kabar moo moo moo doole. jullit waa ji ca la Seyna Issa ni xaaral ma ñaan bokk ci yoonu ma. maa far mu doon fa taalibe wala mu doon fa taaw far muy taaw ba moo tax bàyyi laay daan ne wax naan wa min duwaay Seydina Issa rawlaay rufia nuuru Seydina moom mu ne si ñaanu Seydina Issa ga ca la leeru bàyyi laay sax yëkkati ko xale baa nga doon wax léegi sama maam bi mu bi mu mujjee Israël daf leen wax ni kaay leen bég leen sama gannaaw dina ñëw ismuhu Ahmadu Issa a annoncé yaati min baade ismuhu ahmad ibrahima mooy abul anbiyaay moussa moo déggoon yàlla muy wax mais mus nga dégg fu ñuy nodde naan asadu annaka moussa wala asadu annaka isa déedéet asadu asadu anna muhammadan rasulillah parce que mooy seen bi yàlla kenn du ko duuraat billahi wallahi tallahi bàyyi bi mu wootee allahu akbar dafa am góor gu dëkkoon sàkkal isa ñu ne ko am na yoof mm-hmm. mu ne may leen ko ñetti hmm? yàgg na de ñetti fan. yàgg na de. ñetti fan ya mat mu ne may leen ko ñetti weer ñetti weer ya mat mu ne may leen ko ñetti at mu ne maa ngi dem màkk bu fekkee moom la yàlla bu ma dellu si mu dem ci digg géej gi picc ma tiim nga ne ko waat nga lakk nga kii la yàlla yónni mooy xayru xalxulaay yàlla mën nga ko waxal lépp waaye yàlla ma yónni kenn sañu kaa wax. kon bàyyi laay mooy xayri xalxilaay. te billaahi wallaahi barke alxuraan bàyyi laay mooy Muhammad. billaahi wallaahi. te yàgg na yàgg na. soo tegal foofu sa baaraam euh, sama sama soppe xoolal réew mi lu fi ne xoolal réew mi lu fi ne. Mhm. sang bi est-ce que xel may na la Serigne Touba dugg ci gaa gi dem Mahembe. ndeysaan. est-ce que nit ñaa ngi xalaat Seexul Xadim bu demul woon géej ku neen ku dul woon moom boo demee doo ñëwaat. déedéet. bàyyi laay dem na ba gore taxaw ne du yoonam. daf escale la fa doon def. bato ba paan fa. dinaa fa ñu dugal ko ci biir kaso bi mu génn ma ngay waxtaan ak Seexul Xadim Congo ki Belgique wiir wiiri biir gee dama leen di dégg waaye Seexul Xadim. yaa ngi dem. nga jël sëñ Modou Moustapha. jël sëriñ Fallou dénk leen maam Thierno maam Thierno di jàngal Serigne mu Moustapha su fa jaaree ñëw ci Serigne Fallou toog ak moom buñ ko ki ngay jàng mu leen sama doomu Serigne. Cheikhul Khadim bind asiiru maal abraaru hunaaka asiiru wa zannal hudaani hunaaka asiiru non ku bëgg a weddi di nga weddi ah. gëm dogal yàlla yi buñ bëggee am jàmm. wallaahi Cheikhul uh-huh. raan ba mu nee ci digg dafa ne bu ma kenn xool bu kenn ànd ak man am naa yàlla dimbali na ma ñu ma ànd ñu ne ko kan mu ni rafiixi rafiixi kitaab allah. ku sopp bàyyi Serigne Saliou Mbacke defal nii. wala mu sama rafiixi kitaab allah. rafiixi kitaab allah. rafiixi kitaab allah. rafiixi kitaab allah. rafiixi kitaab allah. Serigne Touba nee na am naa àndandoo alxuraan la. wal Mustafa nabi. Serigne Touba nee na yonente baa ngi di ma kondir ñu ngi dem. wa asxaabahu fil baxri Seexul Xadim nee na man ak saaba yi ci géej gi. xiinaadu jamono bi may wër wëndeelu ci géej gi man Serigne Touba ñëw. الأبرار هنا سير وزن الغداء أني هناك أسير مسيري ما لقيان لله بالنبي وما لي لغير الله أعود المسير كسب سرين توبا مقلل باي بسك بار مامي دناي سيخ مكة سرين يمكن برايم نامل دارو باي سرين فالو مكة باي سيخ مودو مرتدى مكة باي سيخ عبد الله إلاد برم بلل باي سرين سالي مكة برم جابنا الخبان برم لغنا nañ ndooka borom daara yi njurul borom daara yi umul xura borom daara yi daara yi xudus borom daara yi alimul xabir borom daara yi ñaaro borom daara yi jaloor borom daara yi jannatul maxwa borom ñaari daara yi ca ngaabu borom jowaan gee caroon xëy na ba jël abi xom nga jow nga matal ustarati Seex Bamba jiital nga jëm mi ndigal soo xamul kii may wax Modou Mbaye ah. mooy sëriñam Seex Rafal jooja ko du faale njaay isa jeeyi fatim benna dasu eh, eh, kaaba eh, moo ah. ni jeeyi damay di ci fuñu démb Baye Fall yi nii lañ fi nekke woon Seydina Limaamu démb Baye Fall yi nii lañ fi nekke woon li Limaamu lii dafa rafet Moodu lii dafa rafet sama xol bi sedd na Baye Laay mooy yonent bi moo tax lii yombal ci ñun sallallahu alayhi wa sallam daa njabooti ñëpp sama baay am na doom Cheikh Mbacke ma ngi ci kër gi di ma dégg Cheikh Mbacke laay sama xarit Serigne Mansour ma ngi may dégg Cheikh Tidiane si Al Maktoum ma nga jàmmalaay Ibou Sakho nga Kër Massar sëñ Modou Moussa ngi yoof sëñ Fallou ngi yoof ñëpp a ngi fi Abdou Khadir Jeylaani fi maam Baba Taal bu seex Omar Fouti yi mu ngi ci kër ga nga dëgg doyoon na sëkk léeg-léeg sax nga nuyu ne ni ko laay mu ni santuma laay fekk ñëpp laay la ñu war sant laay maxtaar boo demee màkk ban santaa fa am amul ñaata yonental yàlla bind 124 000 124 000 nan ma ji utal yonent bu sant benn sant kan moo ci jëkk aadama nu mu sant alay ah! ku bëgg fekk déwén tamay xool defal nii sa aajo faju Adama laay la san Moussa Kalamullah Papa laay Moussa laay la sant Ibrahima Khalilullah yaa ñaari koo nii bardan salaaman ala Ibrahima Ibrahima laay la sant Zakaria alay salaamullah Zakaria laay la sant Daouda alay salaamullah yonent yàlla Daouda laay la sant Limaamu Laay. Yaxya Laay la sant. Nooy la lay sant. Nooy Laay la sant. Loot la lay sant. Loot Laay la sant. Daawda lay sant. Daawda Laay la sant. Ibrahima Xaliil Ibrahima Laay la sant. Muhammadu Rasulullaay. Muhammadu Rasulullaay. Aljana Laay. Aljana Laay. Kaabata Laay. Kaabata Laay la sant. Naaru Laay. Safara Laay. Isaaro Laay. Man Seydi sa soppe Isaaro Laay. Seydina Limaamu Laay. Baay Laay alayhi salaam Laay la. Sama xol bi dana wadd fii man. Ànd naan Laay Laay Laay eh! Laay. Laay Laay. doy sëkk danoo doy sëkk ni bàyyi laay problème mu ethnie lii salaatu wasalaam benn ak xarfal xale yi ba ko bàyyi laay di indi kaña kañ la 1880 daa ba tey bàyyi laay ni su ngeen amee xale bu juddoo juróom-ñetti far xarfal leen ko léegi tubaab yaa ngi koy def mhm. bàyyi laay ni sama kër bu ma fa dégg pël bu ma fa dégg géwél bu ma fa dégg séeréer na ñépp sant laay saga bi nañu wax dëgg rek barke démb bi fi coupe bi ñëwee ni fi ñëpp àndandoo bokk ndey bokk baay jël xol yi dëppale ko bu ci noonu ci diine léegi léegi lépp. weex bi situation sociale. gis nga lu weex li du fu la neex topp. Mhm. moo tax Seydina Ali Maamu sang bi. avant muy woote. tëbul tëb ni yàlla ma yónni déedéet. déedéet leer gaa nga ca ngor. di wëndeelu. di wëndeelu bàyyi laay gëne àdduna. ak la fa xew leket gën ko këppaloon ca màkkatal mu karam këppal nañ ko nga yoof yi mu xalaat lu ne def nañ ko mu nekk xale bu ndaw école japonaise bi nekk foire waxoon naa ko fii daaw fa la mag ñi daan taxane bàyyi laay day jël jaasim ànd ak ay moroomam ci zahir mais du seen moroom ànd ak ay moroomam bu nu taxa moom bu ñëwee ñëpp andi moom du andi maam Alassane Diop ne ko limaamu ana la ma la yónnee ma ko bàyyi mënumaa gor benn garab li anal asjaar tu sajjidoo nii wa tu sallimoo nii garab gu ma jug mu sujootal ma ziar ma nan laay gor nan laay gor a garab. alhamdulilah bayyatu asjaar yoo fi fi. laa ilaaha illallaah fataafa fi jismihi tiibul ma. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah sama xol bi di ngeen ko waddal fii man balaa may dugg sama xol bi mu ngi neex yaa ngi dem. suñu kilifa yi dañ daan wax loo xam ne ñëwagul ndax boo seetee li xew ci jamono ji tey muy ñàkk maanu weerante wàññi sutura nit ñi ma dégg ñu ni maam limaamu waxoon na ko ci ay jamonoom avant lii di ñëw suñu suñu sang bu tedd boobu ñu ni ñu ni woon bi ko sallallahu alayhi wa di feeñal dañu woon dina fees dell mante ci jamono mu waxoon ci sutura sutura taxoon mu ni ci xeet yi nga xamante ni moom fa la fëgg a bëgg a feeñ xeetug lébu ci la bokk ndax ñi gën a maanu ñoom ci la ñu bokk léegi ñàngan moomu lan nga ñu ciy leeral bii may wax nag Ibou Sy ni taw laay sama sang bu tedd bi yow la concerné parce que dañoo gis ni yow li la Sénégal bëggee ñëpp bëggee la ko mooy tey boo dikkoon fii ñu ne la changé nañu waxtaan bi tey waa kër Cheikhul Khadim la ñuy waxtaane doo delluwaat sa kër suñu la woon waa kër Sidi Hadj Malick la ñuy waxtaane doo delluwaat sa kër bu le ne woon waa ñaseeni la ñuy waxtaane doo delluwaat sa kër mu mel ni danga am benn relation bu kii nag ak seexul Khadim ndax man jour ma la njëkkee gis kër As Diouf bi nga ma nuyoo ma ziyaar la ba pare da nga ni ma Ibou Sini Thiawlaay soppay Khadim Rasoul loolu lan la waaw bu ci loolu ne bu ci loolu Abila. Mhm. defe naa Modou mbay mii ci li muy yëngatu léeg-léeg nga gis <laughs> bëgguma tudd tur léeg-léeg nga gis fan bi sama waa ji waa ji loo Modou Lo nga gis fan sam léeg-léeg nga gis fan mhm. su diw mhm. kenn yeddu leen de lan moo dama bëgg suñu jaani may yedd man dama bëgg Cheikhul Khadim xam naa ne dara dama bëgg Serigne Babacar Sy dama bëgg Cheikh Ibrahima ñas dama bëgg Baye Niass dama bëgg Seexu Ceneba dama bëgg ñëpp ba waa jàng bi bëgg naa leen sama wax ba dikk na moo tax ma ni la bu ñu la woon diw la ñuy waxtaane doo dellu sa kër waajaat naan leen balaa seen xol yi di wadd <laughs> naan leen noonu lii neex na Pape Sidi neex na naan leen naan leen dee leen naan <laughs> laay waay laay maxtaar waay man man di nga ma rey billahi di nga ma rey dafa moo Modou defal ko kii nii énergie tag Modou defal ko damaa <laughs> gën a kontaan gisoo sama bëñ yi ni muy génne man damay ragal mu wadd sax balaa. non Habib sax <laughs> laa tudd Pape Sy. waaw <laughs> ah, mu ngi noonu. macha allah lay Maxtaar. dana ak Mamadou. danaa la wax lu ne de. Seydina Limaamu. alayhi salaam. xam na fi àjjana nekk de. man am naa ci lu ma leer man musuma dégg mu dëkk fu tàng fi mu dëkk fépp fiix loolu teg talla Mamadou ñii ku wéet ñoom insister ndax ñemewu leen a gëtan saraxu raam tëdd ñu wax la fi mu ne yaraa sax daa am ndox day sedd guy <laughs> xam naa li ma lay wax wallaay dëgg la wallaay dëgg dëgg la ci ci question wu Bella bi <laughs> euh, Bella wax na dëgg yàlla moo wax ci alxuraan waxu mag la du waxu sëriñ du waxu yonent yàlla moo ni